xanaa tey la affaire bi métti ci seen côté ñu bëgg a jóg di victimiser wu te ñoom yàgg nañu xaajale ay waale ak ay nitam waale di leen far waale dem na benn instant yeewu na xam na ne ñoom ñii tamit yàgg nañ ko yàqal mais da ciy dëgg tànkam parce que bu ñu diw dafa a waale day jéem a jël protéger kooku loolu la ci jublu parce que xolom bu rafet ak baaxaayam yóbbee na ko foo xamante dem na ba benn instant affaire u seen waale sax dafa jaxasoo ah, ah, eh, yow kii aada moom seen bi sax kenn xamatul lan lay nuru affaire bi ku ne xam na ne nday njaay band yaa ak awa ñoom ñaar gisoo keroog waa naan dañoo bëggantee mais mi ngi def ah, ah, loolu la fa nekk dama ko bañ a wax sax mais ma xam ne yow man ngay wax loolu dama ne la affaire bi bëggante wuñu tellement que awa Ndeye Ndiaye da koy xatal parce que jël na place ëpp na ko maanaam euh, nu ñu koy waxee filimu fekke parce que bu dee dëgg rek moo neex yàlla Ndeye Ndiaye ci kaw seen moo gën a présentable awa ci kaw seen bokkuñu parce que kii moo gën a man seen soo mais mi ngi koy déranger en fait parce que moom moo fa nekkoon mënoon na ko fa bàyyi rek loolu kenn werante wu ko mënoon fa bàyyi awa rek mu jëm dama jàngiwaat fecc ci defar ay bagage am xam nga mooy loolu parce que ñoom ñu ko yóbbee mooy duñ dem jàngi aar a gis keneen ku siir comme ni waali ñu ñëw rek ni carax temps ñu dem jàngi aar parce que loolu moo leen manqué dèjà ñaari fecckat bu jigéen sax mën nañoo nekk ci kaw seen bi parce que benn fecckat bu jigéen rek doyul souvent mën na sonn il faut am ko ko remplacer te aw amul condition elle n'est pas de condition gaaw a mais kon ñoom ñaar lu ñu bokk benn deret mooy tax ba affaire bi di xaw a garaaw mais su fekkoon ne jàmbur la beneen nit la peut-être mën naa bañ a demee noonu mën naa bañ a demee noonu mais li ma lay wax mooy ay di Amady Badiane ñoom ku ci nekk def nga loo xamante ne ni bii raam daan parce que Amady Badiane nit ñi duñ ko bëgg a balaamee par contre parce que dafa wane cofeelam ci waali dafa jël waale aaki moo li tax euh, ñu gën a fësal àndu ame euh, Amady Badiane ak Waly te fësaluñu àndu Ameth Thiou ak Waly bokkul parce que Amady Badiane dafa jëkk rek jël Waly xëcc ko ne man maa ko moom bokkuma koo kenn gis nga fi may waxee jaatalu ci kenn xajalu ci kenn programme day am sax yow Waly ne man kii dama ko sant def nañ ko grand théâtre bi même Maroc bi nga xamante ne nii grand bége Maroc bi man maa demoon feccali Waly man Arma Ndiaye la woon ak ak ak Amady Badiane mais am Amady Badiane daf koy jaral dara sax su ko Waly soxlaa ne kii dama ko soxla bu fekkee ne yow ëmmëri ki euh, waaye dafa intéressé si yow ëmmëri dina ko jaral baal yow loolu dina ki teg barrage quoi daf ko yàgg def nag dëgg rek moo ne damay wax dëgg te yàlla rek tax tey jii bu demee ba nag ba bor bi ko ko nag bu mu mer na xam ne loolu la yàlla dogal parce que yàgg naa kale ay doomu aadama ñu waal yi te ko bëgg ba xam ne lu ko Amadou Badiane def bëggul réagir ndax nit ñi ne xoolal li muy fayee Amadou Badiane te fekk ne Amadou Badiane aussi dëgg moo ne yàgg na ko yàqal de mais dama ne ramtaan ku fay jàpp jàppal mbay si ku fay jàpp jàppal mbay si moo fa gën a fidèle te tamit moo bokk ak waali benn deret parce que du ko yàq ndax seen parents yee bokk ndey ak baay mbokk yemul ak jàmbur benn lu leer laa wax ku nekk ba nga ñëwee sa intérêt moo la fa indi soit ñëw pour dafa nga bëgg ci man ci ginnaaw waali laa nekk loo joxoñ ñu jox la ko gel boo bëgg a doxaat nga ne waa man may ànd ak waali loolu yëpp am na ñoo xam ne ñoo xamante dañoo ñëw pour dañ si kumpa pour jay waali pour wax ko n'importe quoi te la ñuy wax dara du ci dëgg mais ñi ko gën a bëgg daal jàppal ne ay mbokkam la Adamo lii mooy dëgg affaire bi dafa jaxasoo tellement que munoo sax comprendre bi ram daan affaire bi moom affaire u jalousante bi moom yow dañ ciy doog a jot ça très très très longtemps depuis ba ne nii depuis ba nga xamante ne nii Wally Seck mi ngi def première partie papam jamono yooyu ay problème dafa nekkoon am pagaay yu dul jeex kon affaire bi comme Wally gën na jóg ci kaw day gën a yokk mais affaire problème bi yàgg na fa euh, euh, kii Adamo yàgg na fa trop ça fait très longtemps waaw ñu bëri dañ nga amee coono li ko fa jëlee dafa dem ba dafa xat dafa dem ba dañ koo beddi mu sonn xamatul fu mu jëm ah mu dem ci mu dem ci ci Pape Diouf mais tey laa lay wax ne la euh, Adamo allo salaamaaleykum. waaw merci beaucoup Ndeye Dior Dior kii euh, Ndeye Dior Ndeye Dior yaa ngi may dégg. Adamo salaamaaleykum. waa xaaral ma Khadija nday jotal yaa ngi may dégg. waa maa ngi lay yow mii tamit am na lu ma war a lijjanteeg yow. waa bàyyi nga ba ci suuf nga soo paree. ci a gën. waaw moo gën waaw. li may wax xam nga ko moom wala xamoo ko. xamaguma ko mais woo ma ci suuf rek soo paree maa ngi xaar. ah. ok à tout ok euh, Khadija kan bisimilah. Adamo ça va. ça si jàmm. ça va bien Adamo ah, lu ma lu ma bëggoon wax ci affaire ji xam nga lan la gis nga Ndeye Ndiaye Banaya Omaro moo ko yóbbu foofu xam nga tax Omaro yóbbu ko foofu dama kaa fekkee ñu toog jur tabaski ñuy wàcc tabaski bi salon Kange yaa may dégg Omaro woo Ndeye Ndiaye Banaya ba mu woowee Ndeye Ndiaye Banaya mu ne ko man de naa sax mais siiwagul mu ne ko looy wax nii mu ne ko waaw mu ko. mais après fan nga nekk nii parce que waayal neen dalaa soxla yaa may dégg mu ne ko waayal neen dalaa soxla ba mu ko nee waayal neen dalaa soxla ndax yaay ne ko ban heure mu ne ko heure boo ñëwee rek baax na mu ne ko boo ñëwee dama laa soxla waale boobu maa ngi day jaay bande yaay ñoo ngi ànd ñu taxee salon kànge ñu bëgg màdd mu ne ma soxna si nañ dem ñu xool màdd ñu nekk ci côté salon kànge foofu noonu di wër màdd fan mooy jaay muy wax amoroo ci yoon bi Omaro bu nekkee dafa dem ci ci ci Wally Seck di fecc kii Ndeye Ndiaye Banaya Omaro moo ko fa yóbbu ndax Zouba lu ñuy wax yëpp moo ngi sama nopp bi ñoom ñaar lu ñu doon communiquer yëpp moo ngi bi biir nopp maa ngi koy dégg bu baax. c'est que nag fii live la nekk lépp dañu mën a wax mais man après man mën naa laa wax yu leer naññ naññ naññ naññ ci Omaro ak Ndeye Ndiaye Banaya soxna allo ana bu naa wàcc ok Khadija bismillah Khadija kan Khadija kan ana Khadija kan Sara Ramzo yaa may dégg waaw maa ngi lay dégg Adamo maa ngi lay dégg man li ma euh, dong la coggu gi lañ war a bàyyi coggu gi ci boppam lañ war a bàyyi ay góor yàlla góor yàlla da ngay gëm sa bopp lii ñuy def nii papa coon daa nangu amu ko woon comme coggu gi ñuy def nii fees foofu dell di siisanteeka kii yàqante boobu loolu lañ war a bàyyi coggu bi te ku nekk gëm sa bopp dem liggéey ay góor yàlla lañ waaye topp ci ginnaaw waali ay man maay xaritam ak maay añu maay añ ak moom ak maay reerandoo ak dama see war a dugg ci millier beeg patati ak patata loolu lañ war a bàyyi beneen bi ci topp mooy li mu def ñaaw na trop ba banish bu ñëwee bëgg a fecc si moom moom moo waroon a bañ de même njàpp ndax bu dul dara sénégalais Euh, mën na far trop trop waaye bëggul kuy xatal doomu jàmbur ni def Sidi Diop ñëpp dañ cee mer sénégalais moo mel noonu nañ bàyyi loolu loolu moon ci lu ma siy sànni. jërëjëf jërëjëf Ramsu kontaan na Ja bismillah. Mariama Mariam Ja Mariam Ja bi moom wér na. ma Majambura, la princesse. La princesse. yoo xamante ni bu ma ko génnoon bàyyi koy def ñu koy wax àdduna day tukki nekkal nit ah lay bàyyi yow yow doo nit quoi nit. kii man Baye Sall jaaxal na ma problème rek toogal xaar yàlla bu ñëw xaar yàlla yeewu na lu mu metti metti lu mu la bàyyi benn yoon bay awa bay kaay toogal xaar yàlla bu ñëw xaar yàlla yeewu na awa yooyu di bi neex rek boobu moom waa di la woon quoi Ah, waa ji baax la nag mais day nag bëri taay. Adama maa lay siyaare. lépp jàmm. léegi wax dëgg naa ko man maa fekkee dama fekk tey man la waaye teg di wéy na Abdallah may sa wàllu yoon bàyyi Fall wóor na ma ma tubaab. Ah, léegi wax dëgg naa ko wax dëgg yàlla. mais dama la bëgg a xamal li ma bëggoon wax de tout tuuti rek. waaw. ci Ramadan parce que Ramadan suñu Ramadan la ñun ñii. su yàqoo ñu la yàqal su baaxee ñu la baaxal. waaw. dafa leer dafa leer. Ah, na de. dafa leer mais Armo li ma wax dëgg naa ko yow Pawlish Pawlish moom nit ku baax la wax dëgg yàlla bëgg waaye trop trop Pawlish Pawlish buy ñëw fa la fekk ñoom Ousmane Thiam ñëpp fa la ma fekk. ah ñu daal ci dëgg la di dox. non damay dëgg xam nga xam nga xam nga xam nga waale wa waale waale mosul mosul changé waale waale lii la ma sa yaa ngi dégg. est-ce que comprends nga mais waaye nit ñi wax wax wax ji ku nekk ak lu muy indi ku nekk ak lu muy indi nag naka diw diw diw diw loolu dafa du xam dëgg fan la féete. loolu rek. te yaa ngi day dem ba à la moom moom day mal placé wu sax pour juger quoi comprendre fu may waxe waaw dëgg de. xam nga man fi lenn laa ko laa laa d'accordul moo mooy gars yi jóge ci yeneen groupe yi ñëw ci moom ñoo ñëw tas Ramdan. xoolal ñoom ñëpp nag xoolal ñoom ñooñu ngay wax ñëpp ñoom ñoom bay si ñoom ñëpp ak lay dégg ñu ngi nii Barki Cheikhul Khadim Mbaye si xam na mu baax Omaro Omaro xool dama xool ci Omaro laay tàmbale xoolal ci Omaro laay Omaro bu koy yaajee waaw gis nga Baye Sarr mi ngi nii nañ ma seetaan bàyyi daal xaw ma xaw ma su ko laajtee waal waal waal dina ko wax maay kan. waaw Diop jëpp a ngi di la seetaan Diop jëpp. soo la soo bëgg naa su ma gubbeeg yow nga woo Mbaye si nga Mbaye si dala la wax ma maay kan wala ñoom Fallou ku baax la Mbaye si Mbaye si ku baax la ku avant bu mu nekk Ousmane Seck di tëggal Ousmane Seck la doon jàppale Wally Seck. Diop jëpp a di. yaa may dégg. Diop jëpp ak lay mais Ramadane mais Ramadane xam la ma ko yàq gars yi lé lé xaw ma la ñu tuddee ñoo ñu tuddee fara cekke xaw ma fara la mooy nday ñuy jóge ci yeneen groupe am te ne groupe rival day ñuy ñëw di di di di ñuuxu waale di duul waale bu dëgg bëccëg matin midi soir di jaxase. yaa ngi dégg. jaxase nañu waale Seck am am am amee ciw ba amee ciw sentir tur boppam daal mu demal boppam. loolu la ñu bëgg a def ëmb ba yaan. yaa ngi dégg man damaa imo Adamo dama lay wax damaa fekke damaa fekke premier dama lay wax non yow yow laay wax sa xel dal xoolal bay seeg nii yow rek lay déglu boobu ba tey déglu xaaral ma wala waaw moo tax li ngay wax da koy xam dana gis lépp non xaaral ma wala non liiral waaw maa ngay gis maa ngay gis gis nga waaw mbay si maa nga maa ngay ziare bu baax maa ngay ziare bu baax nit ku baax bàyyi saalak waaw Baye Sall xaw ma ko man Baye Baye Sall xaw ma ko Baye xaw ma ko mun mun moom mais xam laa d'accordul man mun maa d'accord yëpp benn nit nga nga uma benn taat nga bëgg a war war ñetti fas jógee Sidi Diop jógee Sidi Diop ñëw ñëw ci Madiaye Madiaye ñëw ci Waly Waly wa Waly du dof de nit Ndiaye xam na bu baax pesa Waly Seck dina la teg ba ci kaw nga foni nga foni Waly Seck yow rek la bëgg mais xam na bu baax lu muy def daful jëne jàpp ko Waly Seck donoon bii bàyyam bàyyil ko nii Waly Seck loolu du nit du maa lay wax li yow yaa may dégg. waaw noonu la demee de. Amady Amady Badiane Amady Badiane lañ bëgg sacrifier te Amady Badiane xam na bu baax te Amady tëdd na xam na waali. Amady Badiane xam na waali tëdd da da xoolal dañ koo indi ba xam nga xam nga bëgg a sacrifier Amady Badiane weesu nga taxaw ci public bi naan Amady yaay décidé. non non boobu xam nga xam nga ndeysaan xam nga loolu xam nga Adama loolu mën nañu ko soo ko mën nañu ko gisee positivement bu wax leen gan Ramadan wàllum fecc bi Amady Badiane moo koy gérer loolu Wally Seck yàgg na ko wax non mais Pape Pape di lii day nuru leneen. waaw lii day nuru leneen d'accord naa d'accord naa am na ñoom tamit su ko gis beneen côté dañuy foog ni que dañ koy jaxase public bi mais Wally Wally en Wally en tant yàgg na ne yàgg na di wax que ne wàllum fecc bi Eumeudi Badiane moo koy gérer. man la laa d'accordul man lu ma ci ma ci mos a d'accord aw Ndeye Ndiaye Banaya ci kaw seen Wally ak aw Banaya loolu day rivalité suñ ko waxee ak suñ ko waxul. yaa ngi dégg. am non loolu moo am Wally Seck du ngaaka Wally Seck du ngaaka Wally Seck nalawul ci kàddu xam na lu may wax. Mbaye Sidya gi di dégg bi ngay xam na la may wax Wally Seck du ko jàppee dof barki Serigne Saliou Mbacke dina la jaay ba jënd la xoolal jéggi la dem yoonam. mais problème bi mooy sa waay dafa xam lu bëri mais moom tamit moom dafa. Wally Seck ñu muy ñu muy déglu ba Ramdan bëriwul. Mbaye Sidya waaye da ngay déglu xoolal. saara a bayal Abdallah may sa waali jot mu daaneel ndax kii moom la waali doon way fay naan ko Abdallah may sa waali jot ma gaaw ndax sama yaram dafa tàng suba ba tey ñu lay bëgg a yëpp ci réseaux sociaux yi dama doon nelaw man ci dëgg lay dox Adamo dama yëg dama yëg dama yëg pour dalal xelu Amadou su nekkee Amadou Bayane xam na Wally Seck bu baax a baax a baax a baax comme comme. waaw dama fekkee man dama la wax na ci moom ñëpp a koy a koy wax naka su doon ci internet bi te xamuñu eh, xam na Wally Seck Wally Seck du ngaaka. Wally Seck mënu ko gis nga ko benn affaire man maa waxtaan ak Ameth oh. Ameth nee daa am lu muy seet nee na oh. bu wax rek àdduna tukki Ameth Diouf barki Serigne Babacar Si. Ameth Diouf sama waay la man man Ameth sama waay la. waaw man daal ñëpp samay waay la man man penc bi laa liggéey tontek moom man tontek moom jëloon penc ko doon dagg ticket man maay maay contrôler ticket bi am nga. yow loo wax ci affaire yi am na ñu ngi lay yaa may dégg kooku noonu bu mu waxee kii ne kii ne Thione Seck moo ko indi mu koy mu koy lëmbal da da kooku Ibaadu la woon Ibaadu Thione Seck moo ko indi parce que Bié Gueye benn xam ne moo ko boole yaa may dégg. waaw am ci ak waaye c'est un problème Gambie loolu Gambie mu njëkk ba ba Ramadan. am ci nit nit ku dëggu Thione Seck su su Wally doon tëgg sax Thione Seck day génne Ameth Thiou ci biti di ko photo naan ko yaay sama star Thione Seck benn star la mi Ameth Thiou yaa ngi may dëgg mais yàlla mooy boole ay diggante waaye yàlla mooy boole ay diggante moo boole Amady Bayane ak ak Wally yaa ngi dëgg waaw mais Wally Seck meilleur ami meilleur ami Wally Seck muy moom lay wax naan may na ma ay iPhone 4 turbo sim Ndiaga na Ndiaye sama seex bi. ak gab. non gab yàggul gab gab yàggul dama lay wax Omar Kanté moo njëkk gab Omar Kanté moo nekk moo njëkk gab. Omar Kanté ay am ay am sori ja jomm naa. waaw Omar soo ko gisee muy dox dangay foog mooy dox parce que ba niroog moom muy doxee. waaw. dama lay wax yaa may dégg ah. waaw. ba Amady Bayal laaj ko bu bu Wally Seck ñëwee fii Bel Belgique dafa doon dimbali ma ngir yàlla sax bu leen xuloo maa Wally Seck soo ñu fekkee dangay foog ne ay xaja lañu foo ñu fekk sa kattan day ñàpp nday laal mbay si Ndiaye. dëgg la est-ce que comprendre man mi ngi wax ak yow xoolal man maa Zénith Zénith 2014 maa ko gagné ma taal Diop suba teel mooy sama gaañ man maa nekkoon ci moom maa xoolal ñoom ñëpp ba ngeen am nañ ko du ma tudd tur parce que ma daa def dafa ma woo ne bul tudd tur ñoom tam tey ci encadrement Wally Seck la ñoo doon ñoo doon ñoo doon sol ñoo doon sol Sale Mbaye problème bi sol Sale Mbaye ba Sale Mbaye bi yaa ngi fàttaliku problème boobu ñoom ñoo ko doon sol tey ñoom ñoo jege tey Wally Seck nii yaa ngi dégg. dëgg la de ñooñu ñooñu dama la doon xatal man man dama la doon xatal barki Serigne Touba di nga xoolal soo jàppee moom Mamadou Koné Mamadou Koné Ndiogu Mbaye non dama lay wax man dama lay wax kon man xam nga kon Koné xam ne bu muy jógee Mauritanie ànd ak ànd ak ba Bakane Seck ba Bakane Seck muy liggéey Radisson Radisson comme tey ci man ay Adama Bay nekkoon manager Adama Bay nekk manager yaa ngi dégg nañu bàyyi nañu xoolal diggante Amary Bayane ak ak ak Waly nañ nañ ko ko nii nañ ko bàyyee nii xamante ne ñoom ñaar bu baax a baax yàgg nañu xuloo yàgg nañu jote xamante nañu Amary Bayane magu Waly Seck Amary Bayane papay Waly Seck parce que génn Diouf moo jël Waly dénk ko Amary Bayane suñu kanam ci salle bi yaa ngi dégg. dëgg la am na yu bëri yoo xamante ne kër goo gis day yëngu na kër goo gis day yëngu mais nañ ci neutre te ñaanal ñaanal Ramadan jàmm. dëgg la de te xoolal Waly Seck lan laa d'accord gars yi jóge ci beneen orchestre beeg beneen kii bi ñëw ñëw ci kaw seen bi.

Adamo tournée tournée ba yàlla na Wally Seck am tournée maa la ko wax nii sa Wally Seck amee tournée fa ngay fa ngay fa ngay xamee ku bokk Ramadan ku ko wax ko wax ku bokk Ramadan soo may tournée xoolal barki Seydina Muhammad fa ngay xamee ku bokk Ramadan ak ku bokkul Ramadan yaa may dëgg de. daful de maa la wax nii ñi mën nañu ñëw parce que Sénégal la Sénégal dañuy gars yi dañuy ñëw pour pour pour ut si dépense ci kaw seen Wally parce que kaw seen dañuy ut si dépense. dëgg la waaw merci beaucoup Abdallah kontaan naa. ok jërëjëf kontaan naa jaay tey ziar ziar ok Saara damaa lay déglu. dama sama papa ak ku la yeb daa fekk may nelaw waaye bu ma fuddee rek fuddu ci kawam. Ah, xam nga lan la dëgg rek nga fi wax est ce yaa ngi dégg yow ram daal boo fa silib caaye nga fa loo wax fu leer nga ko teg fu wóor nga ko teg jaxase woo riipa joo rama joo. da nga gis boo loo xamante ne mu ngi yàq nga wax ne lii mu ngi yàq ndax Amady Badiane a Wally Seck lu tey ba Wally Seck naan Amady di Badiane Amady mooy loo xamala loo bi mi son boobu dafa yëngal Sénégal neex ñëpp Amady ak Wally Seck lu tey seytaane bi nekk seen biir na di leen jaxase yal na ko yàlla simpi tege ko fee Ramdam continuer di neex di li yàlla mën na lu ne bu leen ñu soral ngeen xëy suba di taal seeni live ah ku nekk di taal laay fam di duur di cari cari te li ngeen di wax xamoo leen ci dara maîtriser woo leen ci lenn aada moo mooy borom réew papa ji moom moom réew mi lu mu wax a gën lu mu waxul